fidèle ami internet MPROD TV ñu ngi fii nag ci diwaanu Grand Théâtre Jolof Band ñooy fête seen anniversaire ah 24 ans de carrière euh, Viviane ak li nga xam ne mooy waa Jolof Band tey ak suba tey nag nekk bal des enfants suba ñu def ngan di soirée comme ci Grand Théâtre laataa nag ñuy dugg ci biir gis ngeen coulisses ah kii nag di Baye Demba bokk sañ-sañ bokk ci culture bi waa tamit nekk di yàgg dimbale ki nga xam ne mooy Viviane ak ah, ci carrière am mon frère euh, Baye Demba le doyen ah macha allah nga bokk ci musique Sénégal ma bàyyi la ah, maa ngi nuyu bu baax. di nuyu waale sama waaj ndax lu yàgg lu na dëgg la ah Sénégal gépp di wax naan yàlla na jàmm yàgg suñu réew ñaanal sama yaay ji aji daaro fu mu tëdd yàlla nu suuf oyof lool ci koom ak sama baay ji alaaji Wesseng Faye di ñaan ci réew mi jàmm waaw waaw waaw waaw macha allah. Balé ma maa ngi koy wax léegi 24 ans ça Viviane ak Jolof Baan yow tamit nga am liggéey boo xam ne apporté ko ko ci biir Jolof Baan tey nekk ba su mbégte ak suba naka nga gisee nag li nga xam ne mooy carrière Jolof Baan. waaw waaw euh, carrière bu nice ndax mën naa ne def naa fa moom. fii ci Grand Théâtre ndax euh, def na fi anniversaire am ma ñëw jàppale ko. Mhm. ak samay frère samay frère tamit nekk ci groupe bi. Ruus Baba Niang boo nee Ruus rek nee nga Yatma Yatma na Sidaat Babacar Seck Lamine moom it ci biir. Viviane nag di di jàmbaar di koo xam ni xam nga Vivi lu mu def mu neex. Mm-hmm. ndax am na loo xam ne yàlla mooy ko def ci doomu aadama. Mm-hmm. ndax fa mu jaar la nag. Mm-hmm. ku jógee super étoile. foo jaar rek. gongo la ñuy wax. muy ndaanaan. di ku baax bëgg sama mag muy mbay jéey waaye nag c'est normal ndax mbaye ka yar waaw wiyaan mhm. mhm. bu wayul rek dañ ko war a na ko kaay ndax école bi ndax yow lii lan la ku nekk ci ginnaaw Youssou Ndour di ko aw ndaanaan boobu sama mag ji ma koy ñaanal moom it mhm. mu am jàmm kon tey sunu teewaay tey yoon la ndax li ma naan man sama teewaay tey ñaar la. ndax sama monsieur le maire. di Bamba Fall. daf ma woo téléphone. na ma kat xale yi. dañ fiy ñëw. te il faut nga ñëw. looloo gën a war a sama teewaay. beneen bi mooy. maag bi bi danoo bokk septembre. Hmm. ndax xam nga man septembre le 21 septembre. mooy sama anniversaire. joyeux anniversaire. waaw. waaw. Euh, ñu war a tëgg fële nag ci héritage. Ah, ak génération consciente muy Papa juuf ñoo war fa daggee gâteau bi nag. ñu war fa yëngal junjung yi. kon dama ne tey fii daal. day tey fii day neex. day li naa daal day neex. ndax bii bi fu mu jaar mu neex. waaw euh, macha allah yow duñ tàggatoo dañu duñ waxtaan rek ci làmb ah. ndax euh, Ada Fass sa rakk la sa doom la yaa ko yar. Euh, Ada liñ koy coow dégg ci coow bëri na gis nañ tout récemment li nga xam ne moo dal ci kawam ñeneen ñi ne ndog la ñeneen ñi ne Ada moo ko tey ndax nga gisee li nga xam ne moo dal ci kawam. fi ñu toll ni nag wax moom nag jot na mm-hmm. waaw wax moom jot na nag ndax nag aada fi nga juddoo waay tamit mm-hmm. ah Fass Médina ne sawet ñu ne aada ndakaaru yow aada ndakaaru rek loolu loolu rek wax la kon nag yow sama rak nga sama xarit nga mm-hmm. te am na loo xam ne nag foo ma foo wax ko te nag lin naa nag wax jot na moom xam na man xam naa ndax fu ma taxaw moom lu koy jëmale kanam rek laa koy wax waaw defal nii bàyyi lii teg ko ci yoon moom xam na li may wax kon dama ne nag yow nag dangay ngay sunu rak ah di champion nag li nga am yombul de waaw li nga am yombul de nga génn ñu ne aadaa ngi ne le xam nga xam nga xam nga li naay euh, nit a ngee ji dem yàlla mooy ko def ci doomu aadama waaye nag ngalla nag bu ko yàq. ngalla bu ko yàq. tey bi liy amee. ma ciy dégg xam nga niinoo. niinoo sama xarit la niinoo ku baax la. niinoo ku baax la mm. aada. ku bëgg niinoo la waaye mm. niinoo it ku bëgg aada la. ndax lu mu am. niinoo jugal ci loxoom. loolu nag loolu nag mm. mbégte la ak bëgg aada jëm ci kanam. waaw kon daal li ma lay wax nag mooy sa yoon. ngal la bu ko yàq. waaw bul yàq sa yoon. est aada delluwaat ci magu faas yi di ànd ñoom ñu wan ko yoon bi ndax xale la te nit ñi bëgg nañ ko. ah li naa nag mag mën naa bàyyi ci réew. del déglu waxi mag ñi. ca mhm. aada ngir yàlla lu la wax fii. Mhm. bu mu jàll fii. waaw. Mhm. te nag nit ñi nag xam nga kenn moomu leen. waaye nag bu nit bàyyee lépp. di la wax na pour nga jëm ca kanam. waaw da la bëggal lu baax. Mm-hmm. te nag bu nu rusloo. ah te yow bu nu rusloo. Mm-hmm. macha allah ca kaw ca euh, projet yi. yaa ngi waajal dara mbay. Eh, autant waaw waaw waaw waaw waaw fi ñu toll ni nag. Mm-hmm. ñu ngi wàcc yenn ni level nag. waaw ndax xam nga musique moom boo ci nekkee. am na boo am na foo xam boo fa nekkee il faut nga yokk ci leneen. ñu am feneen fu nu dugg. xam anniversaire bi tey. dafa tombeek euh, gàmmu gi. ma waroon ko feete ndax man saa a ma ko defee dama ko def face mais temps bi dafa xat mu tombé nag ñu a nag fële ci héritage nag waaw yéen nag da ngeen war a ñëw de dun fële ci héritage maa la wax loolu 21 septembre génération consciente mhm. ak Papa Diouf mhm. te nag ñu ngi waaj nag Havre lu rëy nag ak Papa Diouf ñu ngi woo ñëpp mhm. di woo Sénégalais yëpp sunu mbokk solinke yi hmm? séeréer yi euh, di woo Mandiaki xam nga di woo ñëpp daal ñëw leen ñu teewe bés boobu ndax nag bés bu nu ñor la waaw ca kaw ca kanam déggee naa ay saa ngi nii waay alaaji mbiru ay ay photo shooting lay jël waaw sa ay sa li ngay dégagé moo fi des waaye ay sa doxal ñu xool waaye ay sa waay ay sa gis nga li nga sañcam euh, li nga sañ tey rafet ay sa waay ay sa waay waay sa waay lay ziar di la bàyyi nga nuyu internet yi waa maa ngi delloo ziar. yaa ngi ci jàmm bu baax maa ngi ci jàmm bu baax. Euh, avant tout mais Aïssa gis nga li nga sañce ci clash. waaw gis nga de dañu ñëw rek oyofal ko. nga ni ma ci 24 ans Jolof Ban yi. waaw 24 euh, waa Jolof Ban tey di fête seen anniversaire tey ak suba ñu invité la yow aussi comme artiste nga ñëw nga bokk tamit ci famille bi euh, sa relation Viviane. voilà Viviane c'est une maman comme ñun ñëpp xale yi nga xamante ni ñoo nekk si milieu bis bi. le fait que mu nekk suñu référence depuis xale. voilà te aussi def fi dara lu ñaaw loo xamante ne benn xale mën nga ne. Mhm. tey duma topp Tata Vivi. voilà wane na yoon bi. Mhm. et euh, duñ def lu dul tey buy fête vingt quatre ans wam dañuy ñëw. Mhm. voilà mu mel ni Vivi dafa bokkoon ci seen i idole yéen ñi nga nekk xale yi nekkoon seen Petit voilà loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. voilà mu nekk suñu sama idole man ak suñu idole ñun ñëpp. voilà macha allah mhm. nga ñëw grand théâtre def playback salle bi ñëpp yuuxu Aïssa sa dégagement lan la Aïssa soo jëkkoo del baale. <laughs> ah gis nga de dañoo baax rek mhm. <laughs> voilà dañoo baax rek. macha allah gis nañ la nga def nekk sa carrière macha allah yaa ngi génnee ay single mu ngi cartonné mu ngi def it euh, lan mu ngay xaar pour songu saali mag yi Euh, léegi rek yàlla ba baax na fi mu mm. toll nii euh, dañu nekk si di progresser nànk-nànk. voilà dañ ko yàkkamti. Mm. Mm. lan la Aïssa di ñoo ngi waajal lu bari waaw lu yàggul dara incha allah. kon ni nga yëngal dëkk bi. allah. <laughs> single critique yi. ma gisee. critique yi critique yi. bon euh, lu positif ak lu négatif ñoo ànd si àddina. voilà euh, gisoo ma ko neen amaana sax lu positif laa gën a gis que lu négatif yi moo tax bi nga waxee critique léegi léegi je t'ai quoi. Mm, déggoo ko <laughs> waaw man lu positif laay ëpp lu may gis que lu négatif. ci kanam rek amoo taatu ginnaaw. moo ngi noonu gis nga li nga def. <laughs> Ah, donc on maa eh, si jàmm. maa ngi si jàmm macha allah Oli avant tout dañ lay féliciter gis nañ li nga def ci kaw seen bi mais aussi yow tamit nga ñëw indi sa li nga xam ne moo nekk sa wàll ci bés bi euh, sa digganteeg Jolof Band ak Viviane Chidid euh, déjà Viviane nit la koo xamante ne ñun ñëpp mën naa ne jeune talent yi mhm. euh, ani caméra bi mhm. donc nekk na nit koo xamante ne ñun ñëpp dañu roy ci moom ñun jeune talent yi donc euh, ça fait un grand plaisir. Mm-hmm. ñu ñëw euh, presté si bés bu toll nii. Mm-hmm. Mm-hmm. nga ñëw indi sa wàll ci bés bu toll nii nan la lay def. plaisir bu mag a mag a mag. Mhm. parce que déjà jouer sur euh, scène Viviane c'est quelque chose. Mhm. donc plaisir rek la mu mën def. Mhm. nga nekk artiste nekk ndaw di béy sa waar ci milieu bi macha allah sénégalais di la a xew nit ñi ne bad buzz la ñeneen ñi ne dëgg après critique yi daloon na sa kaw naka nga gisoon coow boobu. waaw man <laughs> gisuma critique de. mais quand même tiitoon naa. parce que bokkul woon ci samay habitude may def ay vidéo bad buzz et tout mais ci milieu bi lañ nekk des foog ñu xaw a tiital gars yi xuuxal leen. mais voilà bi clip bi génnee ñëpp xam nañ ne ne genre juste en sorte de mini bad la rek. donc euh, mais avant clip bi di génn sa famille yëgoon na li nga def ne bad buzz la wala. waaw sama yaay kese moo ko yëgoon ah, parce que man du ma du ma réeroo ak sama yaay. donc d' accord si woon mais xam nga yaay ak doom. maa ko convaincre ba mu mujj ma bàyyi ma def vidéo boobu. Hmm. mais mais mais est gis nga li nga dégagé indi ko grand théâtre. aywa merci beaucoup. Colobane man Colobane rek laay tibbee. yomb te rafet. yomb te rafet lépp dañ la <laughs> rek laay tibbee. et sérieusement man sama clip yëpp yëpp yëpp. du ma sol pré Colobane rek laay ñëwal. oui da ngay dem jënd sa tissu bu rafet xool sa modèle bu toj nga sol ko te doo gis kenn ko sol. artiste doxal ba kenn laal la. nañu dégagement bi. waaye xale da koy mën waay alaaji medul xoolal lii waay xale da koy mën waay waaye xoolal lii waay waaye su nekkee célibataire ngeen jox ma ko waay ay maa ngi waaye xale bi su nekkee célibataire ngeen jox ma ko waaye waaye mënul xoolal xale bi yow. doyen Moussa maa ngi lay mais maa ngi lay suma suma télé. waaw waaw fii nga bokk. fii sama yëf la. waaw macha allah tey euh, bésu mbégte la bés boo xam ne Sénégalais yëpp dañ ko doon xaar muy 24 ans wu Jolof Ban. Euh, vendredi samdi yow moom fekkee nga lépp nee bi garab bi ñu koy sample nga fekkee ci racine nga bokk tey bu ñu la waxee laaj la ci Jolof Ban yow yaa war a wax euh, tey nag nekk bésu mbégte. waaw macha allah ñu ngi sant yàlla euh, bi ñu yàlla euh, mayee kattan ak tal ba ñu fekkee ndax Diallo Banda 24 ans la ñu wax du 24 jours du 24 mois 24 ans la ñu wax te macha allah ñun ak Viviane 24 ans dara musul ñaaw xam nga ni foo nekk ba yàgg fa te dara musul ñaaw kon kilifa ga moo baax. jigéen la waaye jigéen ju mën góor la ko macha allah. yaay Fall la macha allah. 24 ans yi nga ànd àndal Viviane début bi métti woon na naka seen début meloon ba tey ngeen jël mbir mi yëkkati ko. waaw c'est en fait man sama ñëw Viviane boo fàttali ko gis nga premier match mbalax ma rëppal seen premier match. déedéet. Liberté 4. premier match bi jour boobu laa la laa dugg jolo Band parce que ban dama jógee tournée Suisse ak El Hadj Siggi El Hadj Ndiaye te mu way bonjour comment ça va ko ñaanal yàlla wér ndax dama xaw a tawat Sénégal nañu ñaanal ni laal yàlla ñooñu ndax ñu ay légendaire lañ nga ku ci mel ne El Hadj ku ci mel ne Lamine Faye lém su jamono waaw ñoo ñooñu kenn war leen fàtte dañu war di leen ñaanal di leen di leen di leen di leen di leen sargal jour boobu nag waaw jour boobu nag laa laa intégré groupe bi fekk Bakar moo fa nekkoon moom ma jóge tournée Bouba Ndour ñuy fubal après bi mu jeexee mu ne Moussa dañ war dem Mbacke Viviane dafa dem Mbacke joué benn soirée te baakat nekku fi te ñun tàmm nañ di joué ñaari sabarkat léegi ndax defoo dara quoi tey ma ne ko noonu joué ma parce que limso boobu ñu ngi nekk ci tas tasul xam nga ñu ngi toog quoi. voilà léegi nag mën na ko bëggoon am problème tey defuma dara il faut ñu dem joué boobu laa njëkk a joué ak Viviane Mbacke sama premier soirée Viviane Mbacke la Mbacke waaw waaw allah bi ma ñëwee nag. après ci la boobu wooma gis ne ni may tëgg boobu boobu maa doon tëgg sabar gis ne li may tëgg neex ko mu ne ma ah mais Moussa est-ce que duñu xam nga ndax doo ñëw gerte kay man a am problème su ma deful dara su ma demee tournée damay ñëw jouer parce que man man dama yàgg open man dama open man ñëpp laay la dama open quoi mais Viviane bu xewlee moom waaw Viviane la quoi. Mm-hmm. macha allah 24 ans ñuy ànd ak Viviane 24 ans Djolof Band a neex ci ki nga xam ne mooy Viviane. yar ak teggin. yar ak teggin parce que man soo ma yëgee ma yëg la hmm. boo ma yëgul yëguma la parce que man noonu la ma yàlla bindee mais macha allah groupe Jula Band ñëpp ay gaan lañ c'est la famille la tey bu kenn xewlee ñëpp ñooy ñëw dañuy cotiser sax ndawtal la xam loolu dafa réer non moom moom moom moom daanaan la moom daanaan parce que hmm. xol bi hmm. xol bi moom am na xët-xët mais ku baax la parce que parce que nit ku nekk jikko nit ki da am jikko xam nga li gën a neex si nit ñu xam yow ban façon ga mhm. loolu dafa neex si nit ñu xam ni kii jikkoom lii la mais macha allah Jolo Bane daal li ma lay wax Viviane ko baax la ñu xam ni ñu koy woowee yaay xam nga xam nañu yaay mais yaay Fall lañ koy woowe parce que moom moo moo ñu ji loolu quoi et puis groupe ñëpp ay nice gars lañ ñoom ñoom fi la ñu fekk mais mel na ni ñu ñëpp a ñoo cheminots quoi parce que fii amul naan kii mooy diw kii mooy diw quoi man noonu laay dundee ban baay Fall laa rek après Grand Théâtre nag ñu ngi waajal suñu événement bu mag le 11 octobre sa bës suñu bës la. waaw macha allah dafa am ay euh, ay nit ñi nga xam ne mooy six comme point six comme neuf benn label la six comme neuf ñoom noo ne Moussa Tra dañ dañ la bëgg a sargal parce que gis nañ ci li ma yàgg ci musique bi di jàppale ku nekk nag di tëggal ku nekk ñu ne Moussa yow dañ war a sargal ma leen ah d'accord comme loolu ngeen bëgg a ah, bismillah moo tax ñu ngi koy waaj ma ngi koy defee nag. Victoria Club ci bois ci bois de Viviane bi xamal lu tax loolu delloo ko njukkal parce que xam nga tey boo ñëwee ci orchestre nga yàgg fa dem bañu ñu nommé chef d' Viviane vraiment am fu ma teg moo tax ma ma retourné ma ne gars yi may sargal mais marraine bi dama ko def Viviane quoi ma jël parrain bi def ko Mata Diop suba teel waxuma ko dara de Mata Diop waxu ñoom ñëpp waxuma leen dara dama dama rek def ko parce que ñoom ñoom ma ji teranga boobu ma bëgg leen delloo njukkal parce que Matar Diop dafa jël Sidi Diop woon na Médoune mii bi muy dem Bercy sama sama loxo la teg orchestre bi sama loxo xam nga ki loolu ne la grand dama laa wóolu Matar Diop nekk bi ma koy xam boobu yëpp amul ma ma day moom Paris bi mu njëkk yóbbu Pape Diouf Zénith boobu maa ngi fa mu nekk nit ku baax ku nekk nit ku yaru ku bëgg nit moo tax ma jël bés bi sama bés jagleel leen ko quoi le 11 bi nag woo naa ñëpp yéen ñëpp laa woo presse parce que man man Moussa wu ñëpp laa te woo naa artistes yëpp artistes yëpp laa woo musiciens yi surtout ñi jouer instrument laa woo woo woykat yëpp su ma limee damay juum mais mun naa lim Pape Diouf ñoo nekkoon lëm sa jamono maa ngi koy woo Wally Seck tëggal naa ko ay cassette Viviane mooy marraine bi maa ngi woo ay Samba maa ngi woo Titi maa ngi woo Coumba Gawlo Seck maa ngi woo suma mag Youssou Ndour maa ngi woo Omar Pène Ismaïla Lô Baaba ñi fi nekk ñoom di Diop suma doom parce que koo boo suma doom la xam nga di woo ki nga xam ne aussi moom macha allah suma xarit la ñu nekk lëb jamono Aliou Mbaye Nder Fallou Dieng Abat Samb Maada Ba Salam Diallo parce que dama bëgg indiwaat lëm soo jamono gaay gaay gaay fàttaliku quoi lëm soo jamono loolu laa bëgg gaay gaay fàttaliku quoi ku ñëw si la onze di nga dégg ay ay ay ay waaw waaw musique musique musique démb daal macha allah incha allah mais Medoune di la gërëm di la sant suma frère moom dafa baax di la ñaanal yàlla lii dem ba nekk télé bu mag a mag mag a mag parce que yàlla mën na ko parce que ñëpp fi lañ jaar mais yow macha allah bi nga ñëw ba tey yàqoo aar bi yàqoo internet bi yàqoo télé ndax lii fi bi dafa set neex melun yàlla yàlla dafa jàmm yàlla ñu am jàmm nag béggee rendez le 11 octobre melun yaa ngi ci biir béggee ñu ngi fii ci Grand Théâtre ah, ki ñu jàkkaarloo nag yàgg na ki nga xam ne mooy Viviane Chidid yàgg na ci Jolof Ban tey nag nekk 24 ans d' anniversaire ça se fête fii ci Grand Théâtre tey ak suba Babacar ñu bàyyi la nga nuyu internet yi su ko defee rek ñu tàmbali suñu waxtaan. waaw asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum sama mbokk sénégalais ñëpp rek maa ngi ziar ñëpp waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla nag julli ci yonent bu tedd bi sant suñu ñaari waajur sant suñu wasila Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant Baye Karim bu wér ah di la wax na nag bis bi ni nga ko gisee rek mooy loolu di leen sant yéen tamit aussi yéen site internet yëpp boobu ba léegi répétition yi gis nañ li ngeen ci jàppee gis nañ li ngeen ci daj tàyyiwu leen guddi tàyyiwu leen bëccëg ngir rek bis bi taaru kon nag yéen it ñu ngi leen di jaajëfal. foo ànd ak waaw. ah El Hadj Medoune mm-hmm. ah Viviane mooy li may wax toujours dama naan man trip bi laa fekkee. coup d'envoi bi. Mm-hmm. laa fekkee vingt vingt quatre ans du ñaari fan. du ñett fan du ñaari weer du ñaari at. Mm-hmm. kon koo nekkal vingt quatre ans. ah kon xam nga ne loolu ànd bu dëggu la te ànd man li may wax léegi ànd bu yàgg amatul ndax xaalis gore dafa jafe nit foo mënti nekk. bu méttee na nga toog. Mm-hmm. bu neexee na nga toog. Mm-hmm. koo àndal 24 ans. du ñaari fan. ci biir 24 ans yi moom mi ngi gis ñëpp di ma soxla. mooy li may wax rek su ma neexee ma ne maay Sénégal musique. parce que ñëpp laay enregistré. muy Waly Pape Diouf Momo Dieng yi ngay dégg nii Titi. ay ñoom ay décembre yëpp sama loxo bi moo koy liggéey. mais man Baye Fall laa. je passe inaperçu. Mm-hmm. man damay sax. waaw langul làqatu quoi. def li ma war a def. muy. artistes yëpp ñoom Bass Thioung ak gars yi ñoom Sidi Diop seen i bagages yi ngay dégg yëpp maa koy liggéey ak ñoom tout le monde. ay ñoom Dieyla ñoom Jeeba xam nga tout le monde. mais man Ila Laay Fall laay dund. mais Viviane nag dafa doon koo xam ne. koo xamul ni nga koy def. Mhm. nam la def moo tax. moo ma jàpp mhm. xam ki ma doon. Mhm. xam maay kan. 24 ans ba ñu dalee liggéey ba léegi mosuma deseel cinq francs moom lu ñu mës liggéey rek. li ma warloog sama digganteeg moom def na ko dina ma oo ñuy waxtaan guddi fu kenn dut fekkee te waxtaan bi yëpp lu jëmale liggéey bi kanam la waaw waaw parce que nag koo nekkal 24 ans nag dina la xam nga xam ko dund lu ne taxaw seen bu ne waaw mooy man li may wax rek man Thione Seck moom ma njëkk a yóbbu ma tukki boobu Viviane amagul groupe mm-hmm. bi Viviane formé nag si laa intégré Viviane depuis 2000 ba léegi macha euh, lan moo la gën a neex ci Viviane 24 ans ngeen di ànd te mosul am coow yéen seen diggante yi waaw non man li ma gën a neex ci moom mooy que nit bu timide la nit bu ñàkk problème la xaalis du ko boole kenn xanaa mu ñàkk xam. mais nit boo xam ne la fonk ba pare tamit fonk liggéeyam heure liggéey heure liggéey la heure kaf heure kaf la waaw vraiment waaw ku gëm li muy def la waaw ku gëm li muy def la ba pare am jom am lu muy moytu lu bari waaw moom bu sañoon chaque jour bu ko neexee bu sañoon chaque jour bu xëyee génne morceau bu bees. ndax bëgg musique. ndax ndax bëgg musique fonk sénégalais yi xam fi mu leen teg ba pare bëggul maanaam quantité moom qualité la bëgg. Ah, musique aussi qualité. waaw faut pas chercher maanaam benn affaire yomb na rek xaaral ma def ko non non non non da lay jaral. Mhm. il faut investir pour mhm. gagner man boo xoolee mhm. côté boobu. dama ko ci naw waaw ku mel ne Waly aussi tamit day investir pour gagner ñeneen ñu bari am na ñoo xam ne nag seen loxo jotul seen ginnaaw tey jii dañoo ne ci label mais seen label ya ñu ne dañuy inversir ay millions pour gagner man loolu xam naa li may wax tey ku si mel ne Sidi Diop noonu la demee ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp dañuy investir moyen bu mu laaj seen liggéey ñu ngi koy def kon nga xam ne wéy katu Sénégal muy euh, chanteur chanteuse ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ man moom dama tëddee ñaaxaandaay universel la chargeur bu nekkee càpp mais ci kaw chargeur bu nekk di càpp du téye man xam naa ki ma doon du ma ci toog ak kenn ba wax waxu kenn su ma ñëwee di la enregistrer xam nga lu ma intéressé lu ma lay defal génn doon it doo sama xarit fréquenté wu ma la bu liggéey jotee nga may gis bu liggéey bi jeexee jàmm nag lañ séq bu jeexee jeex na ku ne day nekk ci li mu ne mais du téye man ñëpp samay sister lañ ñëpp samay frère lañ waaw parce que nag je suis pour ça mais Viviane loolu beneen bagage la beneen affaire la quoi c'est la famille waaw c'est la famille sëñ Fallou mais yéen yéen moom yéen du ngeen bokkul baaxul dafa dafa waaw waaw non parce que xam nga tey jii mhm. tey jii mooy li may wax tey jii ñun man ki nga xam ne mooy sama magu papa Aziz Seck moo njëkk a tëgg musique sabar ci musique bu njëkk ay kongaas nga daan gis mu mu à l'époque super jamono Aziz Seck ku ne xam na ko waaw ñun sabar dafa doon loo xam ne buñ doon nelaw boo ñu yee sax ñu tëgg waaw mais yow kon xam nga lépp xam nga lépp tey boo demee tey suñ kër ña fa nekk jël relève bi sama nen nen sekk su ma rak ña koy tëggale ñëpp ca koñ ba leen dëkk duñ sax ay géwél te ku ci tëgg nga fàtte géwél yu bari mm-hmm. waaw barki borom Touba. moo nekk seen bi mooy que métier day mokk da nga koy jàng man maa mujjee tëgg suñu man sama kër yaay sama yaay dafa bañoon ma nekk sax mu jël ma yóbbu ma sama waa kër yaay yaaka des policiers sapeur gendarme ak ay enseignant man heure bi dafa waroon fekk ñu may tóojal caporal capitaine ainsi de suite waaw mais xam nga li naan deret dafa fort waaw deret dafa foor may nag nuyu sama famille ñoom Bagan Seck Talla Seck Bada suma père yi sama papa Vieux Seck mi ñu tàggat ñu nag ñoom coombaay ñëpp ñu koy ñaanal fan wu gudd wér gi yaram yàlla defal ko jàmm Médoune mi xam na lépp xam na li may wax ñun mbir mi caaxaanee wuñ ko dañuy bëgg rek di def muy naayes suñu waajur lim ñu sant ku ñu gis dañ lay respecté boo ñu wonee leneen nag mën nañ la ko won mais dañ la du tal ah, parce que ila laay Fall mais yéen yàlla na leen yàlla defal jàmm waaw si barki sëñ Fall sëñ Fallu rek jaajëf